moo ko daal di jiite Abdoulaye Dièye mi nga xamante ne moom euh, dafa bokkoon ci moom daal di na koy wan ginnaaw Macky Sall itam takkaw taxawu wàllu ñu gis ne ki nga xamante ne moo ji Malick Sall jóge na fa Moustapha boo sàgganul après élection législative bi est-ce que dinañu deseeti li nga xamante ne moo di parti wala coalition. waa xam nga lu waral loolu. Mhm. mooy élection yi non seulement ñoom waajuñ ko woon maanaam élection yi daf leen a ñoom ñëpp ñu si bëri. Mhm. beneen mbir bi tamit. calcul bi temps bi ñu amoon pour ñu waxtaan négocier def yenn yi gàtt na gàttaay boo xamante ne ñoom ñëpp amoon jafe-jafe pour ñu déggoo si li ak yenn yi la preuve kan moo kan moo mënoon gëm ne Moussa Tine dina bàyyi Khalifa Sall situation yu gën a compliqué am na fa mais bii da nga dégg balaa li si yéegee ni Moussa ne man kat génne naa mm. taxaw nga dégg démb euh, mu am euh, l'ancien député si mu mm. def ay révélation yoo xam ne def na ko ci biir taxaw donc nga comprendre kon ñi wax benn mouvement ci biir mouvement nga comprendre que ni kon lan moo am li am concrètement mooy lan dafa am ay euh, parti yoo xamante ne actuellement ñoom ñëpp dañoo constituer ay ay ay ay ay groupe yoo xam ne leen tax a jóg mooy fexe ba dugg assemblée nationale rek maanaam su ma demee si Amadou Ba damay xawal ban garantie laa fa maanaam ndax dinaa bokk ci cinq premiers yi mhm. su ma leneen du ma bokk ci cinq premiers yi mu wut feneen fu ma dugg ji xool ndax naa bokk ci cinq premiers maanaam sama bëgg-bëgg yëpp mooy naka laa def ba dugg mhm. na ñu bëri ñoo xamante ne ñu ngi ci Amadou Ba mais est-ce que gëm nañ ko sax bu ñu duggee assemblée nationale nga ci xam dara am na ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi des ak Macky mooy li ñu yaakaar mooy tey ji mhm. mën nañ faa nekkee député par rapport ak position bi nga xamante ne nekk nañ ko bu ñu duggee nañ cenc maay non mais député bi rek la ñuy wër parce que actuellement li fi li fi li fi nekk pour man on a des plateformes mais parti politique bu dëgër amaguñ ko fi. Mhm. bu ma nee plateforme mooy lan ay kuréel la yoo xamante ne ay parti politique ay homme politique yoo xam ne njortu nañ ne. Mhm. seen intérêt mooy fii la nekk. du question dañoo bokk gëm-gëm de wala dañoo bokk gis-gis de déedéet du loolu de mais dañ naan actuellement la personne la mieux placée pour ma ma pour pour def ma li nga xamante ne euh, mooy mooy mooy mooy député moom laa dem taxaw ci si ginnaaw loolu moo waral nga gis ne ñii bi li siy génnee ba pare ñu taxaw xoolaat xoolaat li si ñu ne non man daal damay bàyyi parce que wax dëgg yàlla ki fii fi ñu ma teg arrangé wu ma ñii liste yi génn ñu gis ne dugaluñ leen si ñu daal di mer dem seen yoon. donc mhm. loolu moom mooy li nga xamante ne mooy expliquer situation bi ñu nekkee nii mais dafa am loo xamante ni nit ñi dañ ci war a attirer seen attention. Mhm. yaa ngi dégg loolu ci parti yëpp yaa ngi koy dégg ñeneen ñi dem mais même moment boobu boo xoolee ci beneen wet gi dangay gis ne euh, parti bi di Pastef moom euh, moment bi ñii di amee ñii dem moom ay ñi ñëw lay am. Mhm. xaw ma ndax yaa ngi ciy bàyyi xel. exactement parce que boo déggee ñi naan laan ñi kii dem na kii dem na kële dem na ñoom da nga dégg ñu ne la moom jaara faam ñëw na nga dégg ñu ne keneen fële euh, nee na nee na lay jàppale keneen nee na Pastef lay jàppale. moo tax man leen lu jëm ci wàllum préparation. Pastef moo nekk structure bi nga xamante ni moom moo mieux placé moom moo mieux préparé wu. par rapport ak yeneen structure yi. parce que ñeneen ñëpp boo jëlee bu Macky Sall bi ñoom fi ñu toll nii dañoo nekk ci benn bu doy parce que Macky Sall bu ñëwul. ñi nga xamante ne ñoo ñoo ñoo ñoo ne dañuy voter Macky Sall mën nañ ne ah yéen kat da ngeen ñoo jaay Macky te gisuñ ko ngeen jël forom taf ko fi ne ñu moo nekk tëdd si moom mooy jiite liste bi biir assemblée nationale te gisuñu Macky ñëw fi tegu fi tànkam ngeen ne ah kon kat loolu benn mbir la lijjanti leen loolu. kon mun ngeen ñoo euh, rouler dans la farine ci anam boo xamante ne jaarul yoon loolu benn mbir la. Mhm. beneen bi bu Macky Sall ñëwee est-ce que entre diggante six mois. diggante six mois nit ñi namm nañ ci Macky Sall namm boo xamante ni mën na renverser la vapeur. Mhm. parce que quand ma wax la benn affaire ancien président wala nga nekk ancien maire wala nga nekk euh, ancien koo xamante ni tey jii am nga benn benn taxawaay bi sa gox. Mhm. kooku tey jii li lay gën a may doole wala mu gën la may nga am li nga xamante ni moom ngay wut mooy effet nostalgique boobu noonu. maanaam nit ñi nit ñi namm la. dañ lay namm voilà dañ lay namm te mu ngi mel ni ba Abdoulaye Wade jógee fii rek. merci toog lu yàgg góor gi namm nañ la dañoo juuma. góor gi namm nañ la yaa yaa ngi dégg donc mhm. yooyu yooyu loolu moo ko mën a indi mais malheureusement. Macky Sall yeggaguñ foofu ak moom. Mhm. mais bu doon dañu yegg foofu ak moom ñëwam mën na am benn effet boo xamante ne dafay dafay dafay dafay dafay def benn déclic. Mhm. benn déclic lay def ñëpp jóg na ah Macky ñëw na bu ñëwee dañ koy dajale dañuy mhm. def ni mais yow boo gis boo boo seetloo Macky ba mu doon dem ñu ne dañoo daje woon fële euh, Mermoz doon ko doon doon tàggatoo ak moom nga xool. mais même bañ doon tàggatoo ak moom sax ay militants kese kese nga gisoon si buntu kër gi mais heure su fekkoon tey ji ñu ne la Macky Sall ba muy génn Mermoz ba ni muy yeggee aéroport. Mhm. mais une foule immense boo xamante ne nit ñi kenn amul foo jaar ci tali bi nga ne ah wax dëgg yàlla kii de bis bu duggaatee fii mën na doon loo xamante ne tey de mhm. wax dëgg yàlla ah sénégalais dinañ ne kii de ah, mhm. am na am nañ yaakaar ne bu dellusiwaatee mën naa sonal ñi fi nekkoon. mais loolu amul. donc comme loolu amul nag da ngay comprendre carrément que ne euh, gëwuma wala yaakaaruma entre temps mu am fi lu changé. ba mu war a mën a ñëw sonal ñi nga xamante ne ñoo fi nekk loolu Macky Sall Amadou Ba mhm. moom bu mu génnee ci euh, ci élection euh, présidentielle yi ba léegi mhm. élection yi daf koo bett mhm. parce que bi mu naan maa ngi rencontré kii maa ngi def nii dinaa def ay rassemblement gauche droite sa lañ ko ne taf élection législative jot na structuration amagul structuré gul non non dara amul mhm. structuré gul moom wërul sax dajagul sax si ñu mu doon wër pour waa Benno gisee ñoom ñu dajalu ko mhm. ñu ne ko topp demal élection kon kooku manque de préparation dafay feeñ ci ay mbiram mhm. mooy waral nga gis euh, ñenn ñi nga xam ne tànnoon na leen ñu dem ba si biir bàyyi ko fa dem parce que ba mu leen tànn yenn saa tànn ñàkk pexe la doon doon maanaam tànn na ko mais amul amul amul amuloon pexe demal nga représenté mu fii rek demal kooku daal dem toog beneen mbir bi am mooy le fait que ñu tasaaroo noonu dafa am foo xamante ne tey jii euh, parti bi di Pastef moo ci nar a wu. Mhm. mooy boo demee fu mel ni podoor bi nga xamante ne da nga koy fekk seen leader yëpp ñu tasaaroo Cheikh Oumar Anne jaar nii Abdoulaye Daouda jàlloo jaar na le Racine Sy jaar ne Ibrahima si daal di ñëw ci wet gi mooy ki nga xam mooy ministre euh, de la santé bu euh, gouvernement Ousmane Sonko. Mhm. kon nga comprendre que ne ñoom noonu ñu tasaaroowee nii. tey jii seen i force boo moytul dafay tasaaroo mhm. te bu tasaaroowee raw gàddu la kële bu doon rawee benn voix sax jël na député bi mhm. donc loolu mën na doon loo xam ne daf leen di affaiblir loolu moo tax ma ne mhm. situation bi ni mu nekkee nii peut-être boo koy wax mën nañ jàpp ne da ngay découragé da ngay découragé opposants yi mais boo xoolee ni mu demee nii ci préparation yi ba ci investiture yi yëpp da ngay jàpp ne Pastef mooy la formation bi xam ne mooy la mieux préparée est-ce que li tax euh, li nga xamante ne moo di yi ñu koy nemmeeku ci biir coalition yi mel ni li ko gën a waral bokk na ci li nga xamante ne moo di Pastef li ñu tere nit ñi ñu am li nga xamante ne moo di transhumance parce mën nañu jamonoy Abdoulaye wala jamonoy Macky Sall autant pour moi bëri na da nga daan gis koo xamante ne àndoon Abdoulaye Wade pare ëlbatikuwaat ànd ak Macky Sall wala ñoo xamante ne dañ leen a jàppoon ci ay li nga xamante ne moo di deniers publics mais dañu ñëw rejoindre li nga xamante ne moo di Macky Sall après kenn du leen inquiété mais peut-être opportunité boobu amuñ ko ci li nga xamante ne moo di Ousmane Sonko moo tax peut-être ñu bëri ci ñëw Euh, bu ñu génnee rek dañu nekk ay opposants yoo xam ne day waa opposants yoo dañuy attaqué di sànni ay xeer ainsi de suite. waaye lecture boobu de laa ci am man man lecture boobu laa ci am parce que boo boo boo gisee seen parti am na ñu bëri ñoo xamante ne bu seen bu seen bëgg-bëgg àndu woon am na ñu bëri ñoo xamante ne bu seen bëgg-bëgg àndu woon da ngay gis ne am yaa mooy déconcentré am na ñu bëri ñoo xamante ne bu seen euh, bëgg-bëgg àndu woon. da ngay gis ne kon euh, seen pexe bu antu woon tey jii ñi ngi ci euh, ñi ngi ci coalition Diomaye président mm-hmm. mais euh, pexe antuwul moo tax ñenn ñi ne dañuy voie de contournement bi la ñuy jël mooy lan dañuy créer seen mouvement parce que am na si ñoo xam ne yaa ngi leen gis créer nañ seen mouvement mais lu ñu wax demuñu si Amadou Ba parce que ci 41 listes yi bëri na si ñoo xamante ne xam nga la lañ bëgg layee maanaam dañuy lijjanti am benn député bu ñu amee député après booy booy transhumé da ngay ñëw nga nekk maire wala booy transhumé da ngay ñëw nga nekk ak député léegi ki hmm. transhumé ak ndombal tànk dafay jàpp ne su ma demee dinañ ma jox cër wala su ma demee dinañ ma respecté kon loolu il faut ñu xaar ko dina am ñoo xam ne fii tey jii dinañ fexe ba dugg ak seen ba dugg ak ak ak seen liste assemblée nationale bu duggee xam nga nu ñuy def groupe parlementaire Pastef la ñuy dem bokk ji. Mm. léegi boo demee bokk ji groupe parlementaire Pastef après da nga naan de façon indirecte dugg naa coalition Diomaye. Mm-hmm. parce que ma léegi am na benn responsable boo xamante ne maa ngi groupe parlementaire Pastef donc loolu. beneen beneen voie de contournement la boo xamante ne homme politique yi dañ koy jël maanaam su may euh, su may transhumé du ma jekki jékki ma jug noonu dem ak samay bagage dem déedéet. Mm-hmm. damay fexe ba am benn ndombal tànk après ndombal tànk boobu laay gàddu.

ci opposition dañuy dem ak ak suñu liste bopp dañuy dem wuti ji après bu ñu amee nag voilà ñu jéem a jàppale pouvoir bi mu daal di jàllale ay politique mhm. moo tax ma ne suba boo leen seenee assemblée nationale ci groupe parlementaire Pastef bu ma la bett léegi am na ci beneen wet gi nag ñoo xamante ne fi ñu toll nii moom seen survie la ñuy joué maanaam dañuy nekk ci benn calcul te ñooñ nag ñoo xawoo a ñoo ñooy ñu bokk na si ñi gën a gaañ waa kër Macky Sall yi mhm. parce que mënoo mënee comprendre ñi ñu amoon ñëpp ci ay maire ñi ñu amoon ñëpp ci ñu am ay base mën naa ne bu ñu doon fukk daanaka huit yi wala juróom-ñaar demal nañ seen bopp. Mhm. loolu problème la. Mhm. parce que léegi ñoom ñooñu nga xamante ne tey jii boo jëlee Issa Sall bu Mbour nga jël meeru Malicounda bi Maguette Sène. Mhm. Euh, nga jël euh, meeru Mbao bi Abdou Karim Sall. ainsi de suite ainsi de suite ñoom ñëpp ñu daal di dajaloo ne ku nekk demal sa liste su bopp ça pose problème parce que ñooñu amaana bu fekkoon dañoo des ak Macky Sall ba tey di mën nañ ko dimbali ci ay mais léegi ñooñu bu dee dañuy xëccoo fii. Macky di xëccoo fële euh, Amadou Ba di xëcc ci beneen wet gi tamit waa sàmm sa kàddu ñëw taxaw wala bon bu fekkee am na intercoalition ñoom ñu daje fa. Mhm. mais dès l'instant que ñoom ñu présent fa. waa sàmm sa kàddu présent fa. Mhm. wala beneen force opposition bi passé présent fa rek bu ñu moytul dañuy am problème ak parti au pouvoir te ñëpp xam nañ ne. Mhm. parti au pouvoir euh, dafay am benn avantage boo xam ne toujours daf koy am euh, mu jëm ci. li nga xamante ne moo di élection élection élection législative wala élection présidentielle mhm. euh, parce que ay responsable am euh, côté moyen côté pouvoir bi nga xam ne yor na ko ñu bëri jàpp ne buñ ci jàppee après euh, bu élection yi jeexee war nañu mën am nomination nangam ak nangam parce que loolu mooy force bi gisoo Macky Sall tey ji lan moo yombal tas bi xam nga Benno Bokk Yaakaar yoroon na ko fi lu yàgg te Benno mhm. tasul woon loolu lañu doon wax mais ba mu demee ba tas benno pour man nag ci li nit ñi war a gën a xamee ne. ñibbiseem non ñibbiseem du gaaw a yomb sax parce que mais. ami bu doon bu tasul woon bennoo mën nañ ne kay. Eh, Macky am na am na benn source de motivation. voilà am na loo xamante ne am na appareil boo xam bu ñëwee dina si jàppandu mais mhm. Macky bu tasee bennoo kay bu ñëwee fii si lan lay jàppandu. déjà non mais <laughs> xam nga xam nga bu tasee bennoo ami léegi bu tasee bennoo xam nga tas na ko. mais boo tasee benn ñibbi si fii dem ànd ji ak ñoom Abdou Mbow beneen wet bi nga seen fa ñoom euh, Amadou Ba fële nga seen fa ñoom Cheikh Issa Sall feneen bi nga seen fa ñoom Maguette Sène fële ñoom Abdou Karim Sall ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite mais daanaka amatoo amatoo appareil bu diis bi nga amoon comme benno mhm. daan mën wër dëkk bi bu ñëpp toogee fii ngay boo boo waxee ñëppay noppi. boo yëkkatee sa loxo ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp noppi mais léegi loolu amatu ko mm-hmm. tey bu ñëwoon tey si li muy jàppandiku tu lu tuuti lay doon te ñooñu tey ji ab Mbow lan la ko mën a apporter Thiès dañ koy dañ koy waxtaanee Mm-hmm. donc yooyu yëpp moo tax ma jàpp ne euh, ñëwaatam daal man ba léegi des na koy des na koy gëm daal. tant que mm-hmm. su ma ko fi gisee nag mën naa ko gëm mais ba léegi daal. ñëwaatam daal dama ci am xel bu tey est-ce que xam nga ne Moustapha am na ci ñoo xamante ne tey ji bu fekkante ne Ousmane Sonko tijji na li nga xamante ne moo di transhumance bi maanaam maanaam tëjuñ buntu Pastef. Mm-hmm. ba pare taxaw ci bunt bi ak di yóotu ci fenêtre yi di xaar ku dugg. kon am na ci bëri ñoo xam ñu ngi àndoon ak Macky Sall mais dinañu rejoindre li nga xam te ne mooy de Pastef non seulement dinañu rejoindre ko pour mën a dundaat politiquement mais aussi dinañ mën a ñëw rejoindre ko pour làqatu ci li nga xamante ne moo di mm-hmm. ginnaaw Ousmane Sonko wala gouvernement bi comme ni ko Macky Sall mm-hmm. doon defee. waaw mais loolu kay moom c'est une évidence parce que mm-hmm. boo xoolee da ngay xam ne li nga wax moom da nga am raison surtout toute la ligne am na ñu bëri. ñoo xamante ne plus dix wala <laughs> plus cinq. xam nga xam nga ami mhm. boo leen dégloo fan yi si yenn débat télévisé yi nga gis mhm. koo xam ne dañ ko invité ñu ne opposition la bokk mais bu ñuy toog ni muy waxee ak ni muy raayee wax ji rek mhm. ngay xam ne kii de ku ko ku ko mayoon kanam tuuti mu daw duggi Pastef mm, mais comme li nga gis ni mu xew ak Mame Diarra Fam li nga gis ñu koy traité ak yeneen opposants yi dugg na par force kan ci tata Mame Diarra non duggul booy booy bloqué nañ ko de booy kar nañ ko de booy Pastef ginnaaw raay kar na ko parce que tontu tontu bi ah mais yow ami boo ñëwee dañ ko yàgg dañ ko yàgg non dañ ko ko dañ ko ko parce que boo ñëwee ami may la man du ma ànd ak yow campagne mhm. jegewuma la mhm. séenuma la jàppalewuma la waa léegi campagne yu lan la koo xam nga du ma la jox xaalis naa demal campagne yi ci mhm. léegi yow yaa naa la na ñoom euh, de façon voilée soxla ñu sa soxla ñu sa njàppal presque loolu loolu la wax ji dunduru waaye léegi loolu kay boo amee fula da dellu sax fa nga nekkoon parce que niñ ko doxalee nii da ngay constater daal euh, doxalin la boo xamante ne amaana ah euh, am na ñu bëri ñu doon takk seen bagage boo moytu nañ waat yebbi jëm fan. ah fu ñu jëm parce que bu fekkee ne da ngay seeti nit ki kay. nit ki ne la. fa fàttewuma démb dañoo dañoo tëj bunt bi tëj fenêtre ba pare taxaw ci bunt fenêtre bi di yuddoo di xaar ko ñëw. bu ñu seen ne la eh bul yegsi. dellul dellul ñoom ah. daal dañoo dañoo dañoo fatt fépp daal. waaw mais man loolu laa gëm sax nag ami parce que man dama jàpp ne wax dëgg mhm. yàlla nag toog si réew mii ne ma du ma opposé teguñ ko fenn. Mhm. wax dëgg yàlla man gëw ma loolu. boo ànd ak nit ba mu daanu góorgóorlul nga organiser. am bu dee da nga am carré toog ci opposition bi. préparer utiliser lépp lu la loi bi may nga euh, utiliser ko opposé wu. góorgóorlu bu la sénégalais yi wóolu wóoluwaat leen tegaat leen ci bopp réew mi mhm. noonu la réew du doxee mhm. waaye nekk ci réew ne man du ma opposé mhm. am ci xeetu ñàkk jom goo xamante ne nag jaraloo ci bañul bañuñu ko ci boo dàqee ñu ñëwaat nga dàqaat ñu ñëwaat nga dàqaat ñu ñëwaat ça pose problème eh, dafa mel ni ñoom politiciens yi na ma yàlla ba mais dañu bëgg a jël def seen bopp ay ñoo xam te ne amuñu ngor parce que bu ñu boo ne waxee dara ju ne la jukkoy politicien la yow cela veut dire que wax ko dëgg et pour man loolu ñoom ñoo ko war mhm. def ci nit ñi wala ñoom ñooy wax yor ay comportement yoo xam dina tax nit ñi duñu leen adressé leen adressé parce que cela veut ne pas dire que politicien laa rek du ma wax dëgg wala du ma am ngor loolu aussi mais politiciens ñu koy pratiquer ay nit lañ duñ ay duñ ay rab loolu aussi il faut que ñu bàyyiwaat ci xel bu baax a baax man problème bi mooy Moustapha ñiy defee ne après naka la xolaatee seen njaboot ah. man loolu en am na ñoo xam ne ñoom jombuñu de xam nga nit ki moom bu jombul rek moom ah. maanaam taxaw di wax loo xam ne dara du ci dëgg wala taxaw di tàgg nit ki ci loo xam ne yow gëmoo ko sax bu ñu la wanee ginnaaw nga ne ah bàyyi ko foofu day font rek ñooñu seetatuñ sax xam ko am ñoom ne politique ñoom euh, ñoom pour ñu boo wax ñu ne politique àddina la yem waaw te pour man politique jaamu yàlla la parce que li nga ciy def mm-hmm. ay nit nga ko séqal mm-hmm. bu dee yow da nga jàpp ne àddina la yem ba da ngay da ngay kàcc da ngay def naka sudul noonu ah mhm. nit ñi tamit jàppale la koo xamante ne sérieuxwul te su boobaa tamit yow yaa ciy perte yow kese mhm. voilà ma leen partager live bi ñu ci seen notification mën ko jot ñi nga xam ne la ñoo nekk ci live bi duñu suivre jamono ji ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax euh, gis nañu message yi tout euh, Binta Sarr bu dee ci Fall ñu ngi lay jaajëfal Mbaye Diaw euh, ki nga xam te ne mooy di Samsung ñu ngi koy jaajëfal Ibrahima Badji lakkale bi Euh, Boga Junior Khadim Fall Cheikh Tidiane Wade depuis Saly ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax Massamba Diop maam Ngmor Gueye Serigne Gueye aussi euh, Yaaya Tamba Serigne Gueye moom